Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Sénégal 7 di am mbégte bu baax a baax di ànd ak yéen waxtu wi ñu leen jox ngir seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 mooy le rendez-vous du donner et du recevoir noonu laa koy faral di waxee ou à chaque fois dama fi dalal koo xamante ne ni dafay habilité ngir waxtaanee réew mi ak tolluwaay wi tey jii ah euh, sunu xarit sunu naataango euh, mën naa ko sax waxee ne ku bokk ci kër gi la wala suma xarit la daal en quelque sorte Serigne Khadim euh, moom laa àndal ci waxtaan bi Serigne Khadim maa ngi laa ziar. maa ngi lay euh, delloo ziar ji bi di am mbégte bu baax aussi ci daje bi. macha allah euh, ci li nga xam moo la fas yéene waxtaanee. Mm-hmm. di mboolem seen internet yi nga xam ne. Euh, ñu ngi nuy seetaan à travers les plateformes digitales de euh, euh, Sénégal 7. Mhm. di nuyu ñëpp di amaat mbégte aussi ci ci jàkkaarloowaat ak yéen fas yéene waxtaanee lépp loo xam ne rek dafa jëm ci actualité bi. macha allah actualité bi moom mënoo ko waxtaan ab Serigne Khadim Bamba Fall donc café laa koy teeroo am teel ah, nii ah. su ko defee waaw ngay ngay ngay ngay xéwlu. waaw waaw del xéwlu di naan su ko defee ñu defandoo waxtaan wu yaatu wu neex. Euh, Serigne Ahmadou Bamba Fall donc ma màggal la bu baax a baax ndaxte màggat la ñu jógee di ziar sama mbokk murid yi daan ci ñëw ci ci biir waxtaan wi euh, mais en attendant l' actualité tey jii yow nañu ñuy wax au conseil des collectivités territoriales wax CEC euh, maanaam conseil économique social et environnemental wax nañu itam ci assemblée nationale rax ci dolli yi tamit am ay coow yu jukk ah, jëm ci Alioune Tine nag ay propos yu mu yëkkati ah, tey jii tamit gis nañu conseil interministériel ngir waxtaanee wàllu ndox mi waaye tamit états généraux yu ñuy waaj a dëgmal jëm ci wàllu transport ah, rax ci dolli yi tamit ñu gis renégociation yenn ci ay contrat ah, jëm ci wàllu ah, donc courant loolu yëpp daal buñ ñu ko toftalee l'actualité bien fournie sans pour autant parler également de li nga xam te moom mooy indiscipline wala yenn yu ñu nemmeeku ci tali yi mais dama koy tàmbale par t wala conseil économique social environnemental Euh, le président basiru Bassirou ca xar Faye mu daal di yëb jëbbal convocation ñii di ñi teewal askan wi ca pencum ndaw réew ma di député yi euh, ngir lan ngir ñu waxtaanee ëllëgu HCCT wala sa ñaari institution yooyu ma ma lim alors euh, lu tax président ci boppam Serigne Ahmadou Bamba Fall choisir moment précis bi pour def loolu maanaam di solution. su fekkee mën nañ ko jàppee noonu. absolument Euh, il faut ñu ñu xam ne euh, le président de la république moom moo yor euh, li nga xam ne moom mooy fonctionnement de la république et des politiques publiques mm par rappel il faut ñu xam ne ñun bi ñuy ñëw di campagne deux mille dix neuf foofu laay mm-hmm. remettre laay remonter histoire bi. deux mille dix neuf. dañoo indi woon un programme jot na le programme jot na partie bi nga xam ne moom lañ waxoon sur la rationalisation des dépenses publiques dañu ne woon li nga xam ne moom mooy les institutions budgétivores maanaam mm-hmm. institutions yi nga xam ne dañoo nekk biir Sénégal waaye amul ñu benn njariñ institution yooyu bu ñu yàlla dénkee réew mi dañ koy soppi même programme aussi bi ñu ko reconduire ci li nga xam ne moom la ñu indil Sénégalais yi en 2024 muy le projet dañoo bind ci sunu axe e bi nga xam ne mooy renouveau des institutions ci biir axe boobu dafa am pàcc bu ñu tudd rationalisation des dépenses foofu aussi dañu ne institutions yi nga xam ne moom mooy les institutions foor yi nga xam ne te jii xaalis dafay dugg te xaalis ba fay dugg amul benn njëriñ sénégal yi ñun ngir rationaliser li nga xam mooy dépense institutions yi dañ koy supprimer. wax aussi ne yenn institution yi nga xam ne ñu ngi fii moo xam yeneen yi dañuy xool lu ñu koy couplé ngir ñu gën a mën a am benn maillage boo xam ne dina mën a tax état du Sénégal mën a fonctionner mais fonctionnement boo xam ne maanaam dina tënku ci yaxanal. d'accord ci loolu ñu ne woon bi ñu ñëwee effectivement dañuy comme que jox nañ ñu baatu réew mi ah li ñu diggee woon sénégalais yi. ne dañuy xool lu nga xam noonu lañ yaxale ne poste askan wi di poste Sénégal ñun ci politique boobu la président ba Bassirou Diomaye fay nekk mais ci loolu il faut ñu xam ne. dafa am ci ay actions yooyu jaar parce que gis nañ fi sax nag ci lu yàggul dara am ñoo xam ne bi ñu génnee dañu doon wax ne yéen ñu digal lu ngeen deful bi ngeen laajee lan ñun leen noonu yéen a waxoon di ngeen supprimer ak CCT ak li nga xam ne moom mooy conseil économique social et environnemental te boobu xamuñu ne la suppression de ces deux institutions maanaam day jaar par une loi maanaam loi boo xam ne assemblée nationale la parce que ce sont des lois organiques ou bien loi constitutionnelle moo ko fi da nga koy jaaree foo xam ne euh, tey jii dina mën a tax nga mën ko supprimer. Mhm. ci loolu ñaari institution yooyu damay fàttali lu ndaw ne biñ koy créer dafa amoon lu tax ñu créer ko. Mhm. benn mooy li nga xam ne moom mooy au bi ñi ngi ko créer bon par une loi constitutionnelle euh, maanaam du numéro 2016 10 du 5. avril 2016 nga xam ne bi ñuy def référendum bi le 20 mars ci lañ ko defaale donc dañ ko créer mu doon une assemblée consultative assemblée consultative ji bi mhm, mooy loo xam ne président de la république des fois mën na ko saisir laaj ko ci xalaatam waaye banqaas la boo xam ne liggéeyam dëgg dëgg dëgg mooy def di maanaam di dajale ñi nga xam ne moom la askan wi di xalaat di ko jébbal président maanaam bu président bëggee tëgg benn loi au conseil bi maanaam bu dajee day dajale waa askan wi bu dajalee askan wi joxe avis askan wi donc loolu mooy de façon très simple avis maanaam assemblée consultative la li nga xam ne aussi moom mooy euh, conseil économique bi moom aussi ça par une loi en 2012 bi nga xam mooy loi 2012 16 du 28 décembre portant sur la révision de la constitution bi nga xam ne aussi jotoon na am donc moom aussi c'est une entité certes institutionnelle mais consultative donc du loo xam ne mën naa ñàkk wala mënta ñàkk. ba loo xam ne bu ñàkkee ci li nga xam ne mooy doxalinu état aussi yàqu ci dara. maintenant la question ko doit se poser. mooy ban mooy sénégalais yi am na ci ñoo xam ne boo leen ne sax lan mooy haut conseil duñ ko xam. boo leen ne effectivement lan mooy conseil économique duñ ko xam wala buñ ko xamee duñ xam luy njëriñam ndax gisuñu taxawaayam donc institution yi nga xam ne tey jii bi leen sénégalais yi soxlaa taxawuñu. maanaam nekkuñu seen wet amuñu benn rentabilité ci li nga xam ne moom mooy les politiques publiques institution yooyu ndekete dañ leen fee tegoon juste dans le but de caser une benn clientèle politique mooy boo xoolee sax ñi ci fal je prends l'exemple de quelqu'un am na koo xam ne animateur la rappeur la artiste la bi ñu koy dugal au conseil mi ngi ci plateau télévisé euh, conseil économique mi ngi ci plateau télévisé te xamul ne moom sax nag ndekete choisir nañ ko. Malal Almaami voilà donc je pense que c'était un un benn bagage boo xam dañ ko fi tegoon rek pour caser les clientèles politiques donc aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye ngir rationaliser les dépenses publiques. xamal ne jibi ñaari institution yooyu mi ngi doon coûter at bu jot 15 milliards jëlal 15 milliards nga multiplier ko par 5 mi ngi lay jox presque 90 milliards jibi 90 milliards mën na tabax hôpitaux mhm. mën na indi ay abri provisoire mën na ja suuxal njàng mi mën na dugg dans la santé mën na def donc nag ñun au lieu rek ñu jël les 90 milliards yooyu di ko consacrer à deux institutions yoo xam ne sénégalais yi gisuñu ci seen bopp wax dëgg yàlla vaut mieux ñu yi nga xam ne moom mooy moom mooy par voie euh, parlementaire ñu dissoudre leen alal ji nga xam ne ñu ngi ko faraan def finalement ñu jël ko réentré ko feneen ma lay xamal la rationalisation de dépenses publiques état du Sénégal da cee jël ay taxawaay yu mat sëkk gis nga 2025 bi ñu jëm état du Sénégal fii may wax ak yow ministère yu ci ëpp laa la wax ñi ngi revoir li nga xam ne moom mooy seen seen budget te budget de fonctionnement bi ñi teq na leen ay douze milliards ñii dix milliards ñii vingt milliards parce que li ñu bëgg mooy bëggatuñu maanaam nguur baat boobu noonu nga xam ne budget de fonctionnement bi moom mooy yéeg budget de fonctionnement boobu sut li nga xam ne ci budget état moom mooy budget d'investissement d'accord maintenant budget d'investissement boobu nag ngir ñu am ko mu sut il faut que ñu supprimer yenn yi nga xam ne mais xam ne aussi mooy les dépenses ou bien les recettes ko li nga xam ne mooy budget de fonctionnement ñu xool naka lañ koy wàññi ngir Sénégal mën a am xam dina ko mën a dina ko mën a dina ko mën a liggéeyee foofu vous avez mais dinaa ci ñëw euh, en attendant nga baal ma rek ma nuyu suma gars yi nga xam ne yaa ngi ci raisonnement bu baax ma may la nga daal di mën a mën a mën a guux tuuti lu lu tàng après ñu continuer parce que naa maa ngi lay nuyu bu baax a baax Khadija Seck également Seydou Hamilton Djibi Ba ah Seydou Hamilton yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di leen wax yéen ñu ñuy suivre ah, mun ngeen a def ni ñoom s'il vous plaît da di bind seen i commentaire question su ngeen ko amee itam ah waaye nag aussi ngeen partager live bi ah invité ñeneen ñu ñëw seetaan euh, man ak Serigne Ahmadou Bamba Fall mii def émission bi actuellement Serigne bi ñu ngi nekk ci ponk bu am solo mais ci sa kàddu maa ngi dégg rationalisation wu dépense yi. ndax da ngeen a wax ne institution yooyu nga fi siite léegi yoo xamante ne nii yu daan génne xaalis lool la sax euh, ndaxte foofu li tax ma ne d'accord naa sànq mooy juróomi milliards rek tabax na benn infrastructure bu baax. ci gàttal euh, mais en lieu place bi affaire yi amee ba tey dafa am ñoo xamante ni ñu ngi naan non ban alternative la ñu prévoir ah pour au moins assurer mission yi nga xamante ne ni ñooñu ñu ngi ko doon doxal. Euh, ñu assigné woon leen ko loolu su ma la ko doon laaj en quelque sorte mooy yan alternative ngeen teg wala ngeen xalaat ngir au moins assurer les missions yi nga xam ni yooyu institution yëpp ñu ngi ko doon accomplir peut-être. voilà donc li si njëkk mooy am benn place benn haut conseil du dialogue boo xam ne tey jii day regrouper mission yi nga xam ne haut conseil mi ngi ko doon am regrouper aussi li nga xam ne moom la conseil économique social et environnemental am. mais amoon na fi n'est-ce dañ koy gën dooleel. waaw innocence voilà mais mais da koy dooleel. dooleel bi mooy parce que boo xoolee ñoom ñëpp ñoo bokk leen li ñuy def parce que ce sont des instances et des assemblées consultatives. Mhm. maanaam ñoom du ñu jóg di jël dogal. maanaam xam nga lan mooy seen métier. wax naa ko sànq mooy xalaat. mooy bu président de la république bëggee def dara mën na saisir au conseil bi. Mhm. premier ministre aussi moom mooy saisir li xam ne mooy sur le sur les volets économiques sur les volets euh, maanaam sociaux sur volet bi nga xam ne aussi moom mooy environnementaux. Mhm. volet yooyu noonu premier ministre moom mooy saisir li nga xam ne euh, par exemple moom mooy conseil économique bi. mais dañuy indi benn alternative boo xam ne ça rationalise non seulement mais aussi li fi nekkoon di ossature bi duñ ne dañ amatu fi njariñ. d'accord maintenant am na beneen haut conseil boo xam ne dialogue boo xam ne mi ngi fi su boobaa mën nañ fa rassembler ñi nga xam ne par exemple ñoom ñooy nekk ci wàllum wàllu wàllu woowu ngir kat ñu mën a xool mais aussi du caagi ni ku fa nekkoon rek dangay dem fa lu déedéet parce que jibi xam nga lu tax man la rationalisation des dépenses. lan moo tax. jibi ñun dañoo nekk ci benn logique logique bi ñu nekk mooy le président Bassirou Diomaye fay mhm. ñëwul ngir yokkal état li muy dépense waaye dafa ñëw ngir wàññil état li nga xam ne moom lay dépensé je te donne des précis. benn bi mooy tu un ministère maanaam on a on a auparavant amoon nañ ministère yu bëri mais fi mu ne nii xam nga ñaata ministère la ñu am. 25 mhm. ministères ak 5 secrétariat d'État xam nga loolu mooy lan mooy li nga xam ne mooy budget bi nga xamoon ni créé woon nañ ñii quarante ministère ñii 30 ministère ñun ngir rationaliser les dépenses d'abord acte bi njëkk a teg mooy d'abord dañoo wàññ suñu ay ministère loolu benn la. deuxièmement boo fàttalikoo le président Macky Sall bi muy dem. daa benn décret boo xam ne daf ko fay signé woon mooy décret portant l'augmentation ci avantage yi nga xam ne moom la ancien ministère yi amoon. Mm-hmm. mu jëm seen avantage mu tolloon ci 1 million cent à 1 million cent mais président Bassirou Diomaye fay ngir sa yaxanal poosu dëkk bi ni mu ci def mooy dafa dafa supprimer décret boobu. donc ce sont des yoo xam ne jot na ko posé beneen bi gis nañ ni nga xam ne tey amoon nañ ko ci ay agence yu bëri yoo xam ne tey actuellement on est de le combiner donte defaguñu lépp. ngir rek jublu ci yàq na li nga xam ne moom mooy poste dëkk bi beneen bi mooy la réduction du euh, maanaam ci li nga xam mooy train de vie de l'État jibi mhm. est-ce que xam ne le président Bassirou Diomaye Faye protocole de retour bi xam ne amoon na ci bu tukki muy ñëw daf ko beneen bi l'interdiction à tout membre du gouvernement d'utiliser les moyens d'État pour des fins politiques c'est rationalisation des dépenses le premier ministre Ousmane Sonko gisoo benn yoon mu teg benn jéego boo xam ne maanaam jéego politique la te mu utiliser les moyens d'État weekend yi buy def li nga xam ne mooy les politique li muy def mooy d'abord euh, euh, otoom lay utiliser ay garde corps am ñoo koy kii et cetera gis nga ni sax d'abord le problème bi nga xam ne jëloon nañ réew mi ba gars yi doon wax ne azalaay bi nga xam ne finalement dañ ko jëloon état ko doon fay en réalité ñun Pastef ñoo ko doon fay. mais loolu aussi ñëw li nga xam ne mooy institution budgétivore bi nga xam ne tey moom laa tudd tey. Mhm. muy haut conseil bi ak conseil économique social et environnemental bi ñooñu aussi gis nañ ne li nga xam ne ñoo lañu fa doon dépensé wax naa ko sànq mu toll ci 15 milliards. at mi mu maanaam 5 ans yi mu lay jox presque 90 milliards ñun ñu ne fi ñuy jëmee yëf mooy on va faire une réorientation budgétaire mooy dañuy fexe li nga xam ne moo fa doon dund moo fa daan dugg tey jii ñu jël ko orienté ko sur des pans yoo xam ne tey jii mën nañ ko en renforcer ci santé bi renforcer ko ci leneen renforcer ko ci leneen donc aujourd'hui gis nañ ne maanaam jéego bu am solo la maintenant. d'accord daf ci am ñoo xam ne dañ doon wax ne li ngeen di doon dig li tax defoo leen ko. waaw yéen ñu diggoon supprimer mais ñooñu ma leen di wax ne. maanaam yaa desee ñun ci droit ak règlement la ñu toll mel ñu fi nekkoon nga xam lu ñoo ñu far sa tracto di jaxase li nga xam mooy loi yi président Bassirou Diomaye Faye mënut a supprimer ñaari institution yi nga xam ne loi constitutionnelle moo leen régir ak loi organique mënu leen supprimer ci daal assemblée nationale mais buy dem assemblée nationale par vote lay doon mais vote boobu muy doon impérativement il faut moom 3 cinquième maanaam sur les 190 députés il faut impérativement 99 députés yooyu gat voté loolu maintenant on a mis les à la responsabilité ñoom nag su boobaa ñoom ñoo xool ba xam ñoom dañ koy dañuy dañuy dañ dan dañ ci àgg ou bien duñ ci àgg mais président bi li mu waroon def def na ko. mooy saisir ne ki nga xam ne mooy la président assemblée nationale li nga xam ne constitutionnellement conformément li nga xam mooy article 103 de la constitution noonu la ko waxee noonu la ko defee donc aujourd'hui li ñuy xaar mooy tey sénégalais yi seen xel dal na parce que xam nañ ni nguur gi fi nekk nguur la goo xam day yaxaanal ay koppar waaye nekkul ci diggante yàq. mais mais Serigne Khadim euh, foofu lañ koy lañ koy ndar keppe ñi nga xamante ni nii tamit dañu ne lu mel ni ANPEJ FONGIP ah DER yooyu yëpp. ñoom nee na dañ doon xaar ñu tënk ko def ko benn pour ci wàllu rationalisation bi ñu wax mu gën a conforme euh, ñooñu tamit euh, ndax jël ngeen seen seen xalaat en compte. absolument li tax ma ñu jël ko en compte mooy dañoo nekk ci benn ñooñu du ay loi organique ñooñu décret sax mën na leen tas. waa ñooñu noonu le président de la république il faut ñu xam ne ñun bi ñu indee en deux mille vingt quatre bi ñu gagné réew mi. waaw dañ fee ñëw fekk benn loi li ñu naan loi de finance initiative. Mhm. maanaam loi de finance boo xam ne budget bi nga xam ne moom la euh, comment dirais-je ANPEJ am DER am ko FONGIP am ko FONSIS am ko yëpp am ko donc ce sont des budgets votés à l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale. maintenant munoo jël nga daggaloo lépp couplé leen te fekk amul une loi de finance rectificative. rectificative boo xam ne tey moo la mën a permettre yow président bi donte par décret mën ngaa jël. assigné ne tas naa maanaam dissoudre naa boole naa mais lii gën mooy da ngay bàyyi ba fi nga xam ne mooy yegg nga ci maanaam booy fatawaat une nouvelle loi de finances étape par étape la moo tax ñi nga xam ne tey ñu ngi ciy wax je pense que effectivement xamuñu dafa baax sax ngeen leeral merci beaucoup il faut ñu reelal leen ñu xam ne tey jii bu ne ñun dañuy synchroniser cumuler li nga xam ne mooy agence yi agence yooyu ci loi de finances initiale 2024 bi dafa voté déjà seen budget te budget yooyu mu voté impérativement il faut une de finances rectificative boo xam ne moo mën a permettre kat euh, ñu mën a maanaam boole nga xam ne su boobaa da ngay boole ANPS boole li nga xam ne mooy les autres institutions ak agence yi nga xam ne benn budget lay am mais tey jii mënoo ne da ngay génne boole euh, ANPS ak kële ba pare jël seen budget collé ko te rubrique budgétaire yi nga xam ne moo fi am xam ne ni ministère des finances daf ko daf ko daf ko maanaam c'est algorithme la maanaam loo xam ne lii la ce sont des comptes yoo xam dañ ko a ko mën a citer donc lii bokk nañ ci la tax ne li tax ñu ne mënu gunoo boole loolu maintenant mhm. jibi est-ce que xam ne suñu liggéey dëgg-dëgg mi ngi commencé en 2025 laaj ma lu tax lu tax 2025 te ñu nekk 2024 ñun oui lan moo tax xam nga lu tax bi ni ñëw dañ fa fekk benn référentiel référentiel boobu moom mooy moom bi may wax sànq waaw ba nii may waxee yow nii ci budget loi de finance 2024 la ñuy liggéey. ba tey jii ba fay may waxee yow parce que xam lu tax amul rectificatif. maintenant 2025. projet bi ci lay soog a gën a mën a ñëw moo tax le premier Ousmane Sonko boo déggee ko rek mun la bi ñu bindee suñu projet te suñu genre yi ak ñeneen ci parti bi fu ñu dem di ko toj dafa am beneen yére boo xam dañ koy solal projet bi mooy dañ koy solal mbubbi état mu nekk un projet fonctionnel maanaam dañoo nekkoon ci cadre politique stratégique maintenant il y aura un autre document te document boobu daf ci am benn prémisse bu ci génn xam nga mooy ban document. ban la ci mooy le document bi ñu tuddee la stratégie de la transformation systémique du Sénégal 2025 2029 ministère du plan de façon sectorielle ministère yi direction yi. agence yi yëpp wax nañ ko ñoom seen plan d'action naka lañ koy tëralee ba tënk na ko tënk boobu moo ko tënk nag mooy ñu ne quinquennat bii kat lii la ñuy def maintenant ci budget bi li ñu ci war a xool. mooy lan mooy dafa am une régression budgétaire mooy li ma lay wax. ñi nga xam ne tey jii je prends ay ministères yoo xam ne tey jii seen budget d'antan 2024 est-ce que xam nga ne budget 2025 bi daanaka ñiy teq nañ leen 12 milliards ñii 10 milliards ñii 15 milliards ci seen budget de fonctionnement xam nga lu tax. mooy on maanaam réorganiser li nga xam ne mooy suñu liggéey mais aussi mu doon une euh, un investissement mu doon de day day un boo xam ne day alloué directement ci li nga xam mooy investissement donc mu doon loo xam ne mbir mu am solo la boo xam ne sénégalais dañ ko war a xam maintenant bu ñu yéegee ba 2025 nag su boobaa nag ci la mbubbum projet di taxaw dëggantaan mais fii ak boobu yaramu neen la def fi mu toll non non projet bi duñ ne yaramu neen la def maanaam projet la boo xam ne maanaam bind nañ ko bu am yére mais nag day jógee ci mbubb sol beneen mbubb hmm. maanaam dafa solul mbubum politique waaye bu ñuy dem 2025 day sol mbubu état. maanaam li nga xam ne moom la ñu bind. ministère yi désormais dañ koy porté agence yi dañ koy porte dégg naa fonctionnaire d'état yi dañ koy porté su boobaa nag ñu soog a nag indi nag déroulé li nga xam ne moom mooy suñu programme je prends l' exemple du du, du président Macky Sall bi muy ñëwee yoonu yokkute la am. mais da doxal na deux ans soo ko indi li nga xam ne pratiquement moom mooy PSE ñun nag loolu fekkuñu ci. fekku leen ci ñun maanaam moom perte na 2012 perte 2013 perte ñu li nga xam ne mooy 2004 2024 bi parce que jusqu'à présent ni ñu ngi ajusté mais aussi 2025 bi day fekk li nga xam ne mooy vision bi ñu am muy 2050 bi ci njëkk a génn mooy le document bi nga xam ne moom mooy TS2S muy la transformation systémique maanaam du Sénégal. su boobaa day fekk ñu mën koo ñu mën ko ñu mën ko ñu mën koo indi ngir mën koo ngir mën ko doxal. d'accord merci beaucoup en parlant de doxal maa ngi dem tuuti ñuy avancer ndànk-ndànk ndax ci aspect stratégique yi laa bëgg a dugg ak politique.